Bienvenue sur Salam Vision. àdduna waa Sénégal man a laaj sëriñ Dame Lo maa leen nuyu mboolem fa sama taalibe nekk biir réew mi bitim réew maa leen waa salaamaaleykum wa rahmatulahi di leen nuyu di leen ziar di leen balaax di leen jéggal di leen jéggalu euh, ñoo xam ne vidéo bii ñuy def rek li ko waral mooy xew-xewu jamono ci mondial bi ñëpp xam na ne man wax joo leen gis nit dugal ko baa ñu waar ko baa ñu ne moo na woon Sénégal ak France avant coupe du monde laa leen waxoon résultat yi ak fi Sénégal di yem avant coupe d'Afrique mel na man maa fi taxaw génn wax leen score coupe d'Afrique avant muy am vidéo boo leen ci gis lu passé lu dul Salam Vision yéen ma woo muy jokkoo yi vidéo bu mën di doon ban koy def boobu coupe du monde sax ñëwagul yeneen yi ban koy def score coupe d'Afrique yi ñëwagul kon àdduna Sénégal nañ dellu si seen xel te ñu respecté sëriñ si te xam ñoom ñooy ñan parce que bu fekkee da ngay doomu réew mi nekk ci réew mi da ngay ñaan ci réew mi jàmm ñun bani wax boobu lii lépp ñëwagul woon mais suñuy wax tey dañuy wax en tant que di sëriñ bu Sénégal doon footballaat suba coupe d'Afrique wala coupe du monde bu ñu gisee dara dañuy génn teel koo wax mosuñoo génn wax ay nit ay sarax wala ñu digle ko ñun lépp lu ñuy wax rek dañ koy def ngir sunum réew ñaanal leen état fay ñu président fay ñu kenn fay ñu lu ñu ci doon def ñoo ko doon def suñu moyenu bopp te ku ñu xam ci liggéey suñ Tuubaa suñu Saaliw yi nga ñu xamee ñu ngi woon xel xelkom taloon na leneen du dul ci max yi moo tax ñi ñu daan woo ak ñi daan gis génn ak ñi doon liir suñu istat daneen gis seen mag su ñu leen daan wax ni mag yu di demee ñu di ko sant yàlla suñu borom bi kon bu leen nit waaree baa mu saaga la bu mu la metti ndax yow sëriñ bi avant coupe du monde yow ana ñu ngi doon ñaanal bu dee ña ngi doon ñaanal dëgg la ci yow man la ngay def ñooñu ñi ngi ñëw ñi ngi indi keneen keneen ak keneen ñi ngi ñëw ci ñoo yow kon bu waxee benn yoon ñu àdduna waar la amul solo ñii jëflante yow nan xam yaay kan xam lan ngay jëriñ xam ne yow li ngay def dëgg la tam man nga ko moo tax man bu passé coupe du monde coupe d'Afrique kenn mësuma gis ma woo ab site man du ma woo site di leen fay du ma dem ci télé soxla ma ku ma invité doole ma gis ma génnee di wan xam-xam di wane xam-xam loolu samay taalibe na xam nañ ko kon wax dara nit ñi waar la dugal na nañu fi amul solo Sénégal moo métti parce que bu ñii di defar ñii di yàq seetaan ngeen ay vidéo yu baree bari man ñeenti bopp nag teg nañ ko ci sama oto lépp ngir yàq wala leneen te ñun ñaanaluñ état Sénégal ñaanaluñ Sénégal euh, état fay ñu kenn fay ñu ana ñen yóbbu woon dañ leen a yóbbu woon ngir ay fay leen xaalis mais yàlla mooy dogal Sénégal moo mujj a toog Allemagne toogut yeneen équipe mag yi toogut buñ ko doon xëcc wàllu ku yàlla ñaar ñooy dem final kenn moo koy jël yàlla moo yor ndam tey joxe nañ ko ku ne gis na match bi ni mu defee ni mu demee képp ku doon sëriñ sax xam nga ne Sénégal moom moo moo yor ndam li waaye nag bu ñii di defar ñii di yàq du sori li ci des nag mooy nit ñi nan bàyyi coow li gis nga ko ci jël sëriñ waar la bu la ko waxee bu la ko wax mi ngi lay yokk parce que sëriñ bi ngay waar am na ñu ko xamul woon te yow sa TikTok ñi ko yor bari na tey jii ñooñu gis nañ sëñ bi xam na ko loolu da ngay siiwal sëriñ bi sëriñ boobu nag bu yeewoo bu siiwee ba pare na jéem a man dara su manee dara ñoo ko ci gis buñ ko soxlaa woo ko naam foo jaar ëllëg nit am ci yow yaakaar nga faj aajoom mais nan xam ne ñu def yooyu yëpp xaaj ñu ci baree bari carte kat yi la ndax yow sëriñ bi avant coupe du monde yow ana ñu ngi doon ñaanal bu dee ña ngi doon ñaanal rek dëgg la ci yow nga man la ngay def ñooñu ñi ngi ñëw ñi ngi indi keneen keneen a keneen ñi ngi ñëw ci ñoom yow kon bu waxee benn yoon ñu adduna bépp waar la amul solo ñii jëflante yow nan xam yaay kan xam lan ngay jëriñ xam na yow li ngay def dëgg la tam man nga ko moo tax man bu passé coupe du monde coupe d'Afrique kenn mësuma gis ma woo ab site man duma woo site di leen fay du ma dem ci télé soxla ku ma invité doole ma gis ma génnee di wan xam di wane xam-xam loolu samay taalibe nag xam nañ ko kon wax dara nit ñi waar la dugal nañu fii amul solo Sénégal moo métti parce que bu ñii di defar ñii di yàq seetaan ngeen ay vidéo yu bare bari man ñeenti bopp nag teg nañ ko ci sama oto lépp ngir yàq wala leneen te ñun ñaanaluñ état Sénégal ñaanaluñ Sénégal état fayu ñu kenn fayu ñu ana ñeen yóbbu woon dañ leen a yóbboon ngir ay sëriñ fay leen xaalis mais yàlla mooy dogal Sénégal moo mujj a toog Allemagne toogut yeneen équipe yu mag yi toogut buñ ko doon xëcc wàllu ku yàlla ñaar ñooy dem final kenn moo koy jël yàlla moo yor ndam tey joxe nañ ko ku ne gis na match bi ni mu defe ni mu demee képp ku doon sëriñ sax xam nga ne Sénégal moo moo mooy war ndam li waaye nag bu ñii di defar ñii di yàq du sori li ci des nag mooy nit ñi nan bàyyi coow li gis nga ku ci jëlab sëriñ waar la bu la ko waxee bu ko wax mi ngi lay yokk parce que sëriñ bi ngay waar am na ko xamul woon te yow sa TikTok ñi ko yor bari na tey jii ñooñu gis nañ sëñ bi xam na ko loolu da ngay siiwal sëriñ bi sëriñ boobu nag bu yeewoo bu siiwee ba pare na jéem a man dara su manee dara ñoo ko ci gis buñ ko soxlaa woo ko naam foo jaar ëllëg nit am ci yaakaar nga faj aajoom mais nan xam ne ñoo ñu def yooyu yëpp xaaj bi ñu ci baree bari carte kat yi la amuñu solo dañuy carte c'est-à-dire ñoo ciy perte jàpp sëriñ si nii sëriñ si naa te léegi yow bara ngay am bës il faut nga wax xam leen ñu bari ñu wax si bëgg am bës ak ay ak ku leen xool moo tax mais du question de loolu boppam la saaga ndax yow sénégalais nga sénégalais sénégal moo tax nga doon def ku bind leneen wax la chaque jour nit nga génn mu wax ci sëriñ wala bind commentaire te xamul sax sëriñ bi di wax lu bon ci moom di ko yàq lan yooyu yooyu baaxul sénégal ñoo ko bokk ñoo ko moom nañ ñaan ci réew mi jàmm ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm da lu ñëpp nag da lu samay taalibe ñun li ci ëpp solo rek nii ñu tooge nii gis nga ñu ngi ci liggéey ñu ngi ci xel comme ñu ngi ndugg lépp ngir bari bëgg a dem xel comme ñun ñu ngi ci liggéey boobu tal xam nañ ñooy ñun suñu taalibe xam nañ ñooy kan loolu bopp li ci des yaa ngi nit ñi jëruñoo déglu jëruñoo seddeel sa dara nit ñi jëruñoo bàyyi xel ci dara xamal ki nga doon ba yow sëriñ bi ku jaxasoo yow naw la ñee la fas yéene ñëwaat ci loolu rek moo ëpp solo li ci des yëpp amul solo ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp àq baal nañu ñëpp àq ñu ñëpp baal lépp lu ñu waaye wax guddi ak bëccëg ñu xam laa ñàkk laa xam baal na la àq ku ñu xamul dong mooy wax ci ñun sa ko du noonu waaye ku ñu xam di wax loolu ndax jëflantu ñu nit lu bon wala ñu jëflanteeg nit lu ñaaw wala ñu dox ci lu ñaaw loolu leen gis nit wax ko nangam kay wax sax xamu ci sëriñ ba kon ñu ngi jéggalu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu nañu ñëpp jéggal sëriñ Muntaxa yàlla fi yàgg te ànd ko wér barkeb sëriñ Saali Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.